أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحوى الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu ñu tàmbalee ci tur yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéwal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziara ci weer wu barkeel wi nu nekk ak ci guddi yu tedd yi xam ngeen ne ñu ngi ci fukki fan yu mujj ci weeru koor te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ko woor am nga it ku minan naar yàlla goreel na la ci safara guddi gu màgg googu yàlla wàcc ci quraan te mooy laylatul qadr ci guddi yu mujj yi lañ ko war a dàkk ndax loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon ñu ngi leen di ziare ci weer wi ak ci guddi yu barkeel yu tedd yi du nekk ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñuy jaamu yàlla yal na ko yàlla nangu luñ ci tarxiis yal nañ yàlla jëkkal ginnaaw loolu doomu ndey yi mbokk yi ci kàttan yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi fas yéene fàttalante ak yéen thème bi nga xam ne moom mooy alxazu saqafi wala nga ne alxazul fikri te mooy agression culturelle baatab agression jàpp naa ne ñun kenn duñ ko wax ñun waa Sénégal baatab agression kenn dootuñu ko jàngal lu muy tekk ndax dañ ko dund ñun ñëpp xam nañ agression mooy lan ndax chaque jour ñu gis mbaa nu dégg mbaa nu seetaan mbaa ñu liir ku ay nit agressé dóor ba mokk mbaa ñu rey mbaa ñu dagg ay cëram teg ci ay jigéen ak góor mag ak ndaw kon baat boobu moom kenn duñu wax lu muy teg bu fekkee culture nag mooy mbooloom lenn loo xamante ne dafa booloo ci xam-xam mbaa ay pas-pas mbaa loolu ñuy wax tey aar mbaa jikko mbaa ay valeur yoo xamante ne doomu aadama yi dañ koy am wala ay aada mbaa ay mbir yoo xamante ne dañ ciy toppandoo ay nit loolu mooy culture benn mën ngaa dem mu nekk loo xamante ne dëkk bi moom lañ gëm wala muy seeni fànnin ñoom loolu rek lañ leen di xàmmee wala mu nekk seen jikko da ngay dégg Sénégal ñu ne bokk na ci seen mbaax fu la lekk fekk nga lekk kër goo dugg boo ñaanee ndox ñu may la nga naan bokk na ci tamit ci culture seeni aada mbaa seeni valeur yoo xamante ne dañ koo am ba ñëpp xàmmee leen ko loolu nag xeet bu nekk am nañ ko ci kaw suuf te xeet bu nekk bi nga ko amee da nga kaa wuuteeg say moroom masalan culture américain wuute naag culture français culture français wuute naag culture sénégalais waa culture africain culture nit ñi ñuul ñi wuute naag culture arabe yi dafa wuute waaye noonu mu wuutee noonu ngay fekk culture waa Europe wuutee culture islam islam tamit diina la joo xam ne dafa am culture am léegi nag ci xeet yi nga xam ne dañ koo wuute xeet wu ci nekk dafay bëgg a noot say moroom ba ay aadaam mu bàyyi ko daal di jël yow sa culture culture yi mu amoon mu teg ko ne ñukk daal di jël culture yi nga xam ne moom lañ ko imposé mu daal di koy jël comme tey ñun waa Sénégal ñi ñu France noté bu ñu jël culture tubaab bi su ko defee day dem ba nga xam ne xeet woowu suñu bàyyee seen culture jël culture yu ñeneen day dem ba ñoom dañuy mujj réer ña ñuy roy duñu egg ca ñoom te bàyyi nañ la seen imaam yoroon su ko defee ñu nekk xeet boo xamante ne dañuy kayan kayan yi mooy tey lu nu dal ñun jullit yi nga xam ne foo dem jullit tey amuñu lu ñuy jox nit ñi mais ñoom dañuy jëli dañuy jëggaani jël te suñu islaam suñu diine dafa nekk diine joo xam ne da doon joxe fu mu dugg rek soppi ña fa nekk daf leen ay jullit ñu mel ni nu bëgg waaye tey mën nga ne jullit bi fu mu dem day soppee waxuma la sax mu dem fenn mais fi mu nekk rek moom kenn du ko xàmmee ñuulul weexul weexul ñuulul kenn xamul moom mooy kan fa réer li ko waral mooy jeexital bi nga xam ne colonialiste bi ay jàngaleem jeexital jeexital na ko suñu réew ay nootam yim ñu nootoon ba léegi mu ñu fi buum gaa ngi ci sunuy baat donte ne dañ koo xaw a yolomal waaye buum di simmeekoo guñ ko bu ñu jàppee ba léegi dañoo am indépendance dañuy nax suñu bopp ba léegi ñun ay jaam lañ comme tey ni colonialiste yi defee woon lool ñëw imposé ñu seeni mbir daal di summi ci suñu buum suñu baat summi ci lislaam daan ñuy yeew ak yeneen buum yoo xamante ne amul relation digganteem ak yàlla loolu mooy culture ginnaaw ba ñu xamee agression mbokk jullit yi li kenn mënta wedd tey moo xam góor nga moo xam jigéen moo xam soppe nga moo xam noon nga li kenn mënta weddi te yenn saa yi soo ko waxee amaana yenn borom xam-xam yi lislaam yi di la xoolee ku soxor mbaa ku tar fekk moom moo ragal wax dëgg yàlla gi li kenn mënta weddi mooy al islaam al yawma yaish bayna naarayn quwatu aadaihi wa jëflu abnaihi ibaara bi la borom xam-xam yi di bañ a dégg tey mooy lan islaam day dund nekk ci ñaari danger ñaari musiba wër ko ndeyjoor ak càmmoñ ci kanam ak ci ginnaaw ñaari safara nekk ci kanam bi benn bi nekk ci kanam benn bi nekk ci ginnaaw ñaari safara wër islaam tey safara bu njëkk bi mooy noon yi kattan gi ñu am noonu lislaam yi suñ nee noonu lislaam yenn saa yi ñenn ñu mel ni ñun gàtt xel dañ naan tubaab yi xam ngeen kan mooy noonu lislaam noonu lislaam mën naa nekk sax ab jullit parce que Sénégal xam ngeen ne tubaab yi noonu wunnu mais ñun jullit ñi ñoo noonu suñu diine barki dem rek président la République ne dañu di baat laïcité ci réew mi loolu ngeen dégg ay jullit ay xalifa général ñoo doon yuuxu ba seen gémmiñ ñi di génne ay xalu safara naan loolu du jàmb kon suñ ne yéeféer suñ ne noonu lislaam bu kenn jàpp ay nit yu weex dama ne ay nit yu ñuul yu naan ashhadu an laa ilaha illallah di jublu penku fekk ay noonu lislaam lañ lislaam képp ku ko tere noyyi yaa ko noonu képp ku ko tere àtte yaa ko noonu lim doon def képp ku ko baare bu yeboo nga bàyyi jullee koor say koor ak say julli yàlla soxlawu ko lislaam da ngay weex tàll mbaa nga ñuul kukk yaa ayuha allazina amanu udxulu fi silmi kaafa wala tattabiu xutwati shaytan innahu lakum aduwun bi yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla ginnaaw ba nga ne man damaa gëm yàlla amatuma diina ji lu may tànn yàlla mu ne dugg leen ci diina yi plein ci biir lépp bu dara des bu leen gëm li bàyyi lii afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunia wa yowma alqiyamati yuradduuna ila asadi al azab wa ma allah bi gafilin amma taamaluun ndax da ngeen a bëgg a gëm li bàyyi lii loolu mooy jullitu Sénégal gëm julli gëm koor gëm tabaski gëm korité gëm taajaboon yu neex yi ñu tànn ne nangu nañ ko yeneen yi nga xam ne nag dafa metti koo wax mu ne ah gaayen dëgg dëgg xaar ba ci kanam quoi gaayen sa diine bi dafa tàng waaw baal ñu tax tafee ko ba ci kanam lan la yàlla wax surtout ahzab maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor ak bu jigéen yàlla ak yeneen tu wax ne nii la ñoom ñuy ñëw di tànn naan nii la warul jullit kon koo gis muy tànn ci diine ji li ko ci neex leneen li ko ci naqari mu teg ko fële waatal ci yàlla ne yéeféer a ngi nii bu fekkee ñeme nga boo ragalee nag nga mel ne ñun noppi kon islam li kenn mënta weddi tey moo xam soppe nga moo xam noon nga mooy islam a ngi ci ñaari danger danger bu njëkk bi mooy noon yi kattan bi ñu am doole gi ñu am di noot l'islam barki démb Tchétchénie ñaata musulman lañ fa rey Bosnie Herzégovine Cachemire Inde Palestine ngi nii nuy noppi démb tey déglu ma journal mais démb rek cinq morts démb xaw ma tey bis bu nekk rek dina am ñu dee yan ñoo leen di rey ay noonu waa loolu est-ce que du danger beneen danger bi nekk ginnaaw l'islam mooy jullit yi askanoo diine te xamuñ ci diine ci dara loolu gën a sonal l'islam tey da nga gis ab jullit bu naan laa ilaha illa muhammad rasulullah fekk xamul dara ci l'islam moo tax tey bu ñu nee l'islam rek nga gis jullit bi wala dañu fi nee laïcité ñan nga gis ñu jóg naan du fi am jullit yi c'est parce que xamuñu l'islam mooy lan c'est parce que Europe moo leen jàngal noonu ñoo leen jàngal lan mooy l'islam ne leen l'islam day dagg loxo day rey nit nangam ak nangam tiital leen ba boo neen islam sharia rek ñuy yuuxu ba seen gémmiñ yi di tàkk ne du fi amee comme niñ ko gisee fan yi passé matagul sax ñaari weer kon ñaar yi mbokk yi ñoo séq l'islam ci kanam ak ci ginnaaw safara bu njëkk bi mooy noon yi doole bi ñu am ñaareelu safara mooy jullit yi ñàkk a xam bi ñàkk xam l'islam tey bëri na kuy julli ak kuy woor soo ko nee faratay julli ñaata la mu ne la ah julli am nay farata boo ko nee faratay njàpp ñaata la mu ne la luy loolu boo ko nee koor gii ngay koor woor lan moo ciy farata lan moo ciy sunna ak lu tax ngay woor wallahi nga rus nga am gàcce ndax duñ la tontu tontu bu leer lan lañ lay wax inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala asaarim la moom man daal dama fekk sama papa ak sama yaay di ko def maa ngi koy def nit ñi ñëpp genn wàll gi yëpp nii lañ am ci l'islam soo leen nee nangam nangam ñu ne sama papa ak sama yaay lii laa fekk ñuy def loolu la ñuy def mais jàng bu leer bu ñu war a jàng l'islam jax defaguñ ko kon doomu aadama yi mbokk yi jullit yi noonu yàlla yi bi ñu yëgee l'islam doole gi ñu am ak kàttan gi islam am ak leer gi mu leer nga xam ne l'islam képp ku ko gëm dootoo nekk al toppe mais yow dañ lay topp waaw dootoo nekk koo xam ne dañ lay dimbali mais yow dañ lay dimbali waate fekkee gëm nañu l'islam dëgg waaye noonu bi ñu xamee lii dañoo taxaw boole seen doole donte ne ñoom àndunu xam ngeen ne salibiya ak sihoniya hindukiya buusiya ak chiyoiya juróom yi cinq forces yi te mooy communiste yi ak sionisme international ak Inde yi ak ñi jaamu Bouddha ak salibiya ñii juróom ñi àndunu da ngay ñëw ci juif yi nga ne leen juif yi lan la ñu ne la doomu njaaloo wala wax ci li mu grave nga ñëw ci jullit yi ne leen Isa lan la ñu ne la innahu abdullahi wa rasuluh kon chrétiens yi kan lañu waroon àndal du jullit yi waaye xool dañ fi ne ñëpp jullit yi ànd ak juif yi naan Isa doomu njaaloo la c'est parce que lan dañ bëgg a xeex l'islam parce que ñii juróom ñii communiste yi nga xam ne ñoom dañuy xeex ne yàlla amul lan mooy seen fan lañ teg seen tànk pour defar adduna mooy organiser humanité sans Dieu nañ defar adduna ba mu jag waaye bu ci yàlla bokk nañ ci seppi loxo yàlla teg ko fële ñu defar sunu dund ba mu neex kenn du ci wax yàlla kenn du ci wax yonent kenn du ci xalaat l'islam beneen bi mooy sionisme international yi nga xam ne ay franc-maçon lañ boroom xam-xam yépp nangu ne ñooñu benn jaan lañ ñor jaan bi geen gi xam nañ fu mu nekk mu ngi Palestine leer nañ bopp bi la nit ñi xamul fu mu nekk day wër rek di sànni ay posonam ay tookeem ci adduna mbooleem guerre yi ngeen di dégg fii ci Afrique Europe partout dans le monde ñan ñoo nekk ci ginnaaw mooy juif yi parce que ñoom ñoo bëgg a jël adduna bi dugal ko seeni poos lu leen neex mooy am lu leen naqari du am coup d'état yi ngeen di dégg rébellion yi amee partout président bu leen neexul ñu rey ak wala ñu organiser rébellion ci sa dëkk lépp ñoom ñoo koy def léegi nag ñii ba ñu xamee islam kàttan gi mu am ak doole gi mu am ci lañu ngemb ñoom nekk benn donte ne déggoowuñu ñun nangu nekk benn pour lan xeex ak l'islam ba jële ko fi doog a àndaan nag xool ñoom seen mbir luñ koy négocier mi ngi mel ne ñeenti nag ya nag bu ñuul ba bu weex wa bu xonk ba ak bu mboq ba te mooy bu jaune ba ñu nekkee benn ñoom réunion seen biir daan ne ñun kat amuñu doole te gaynde gi ci dëkk àll bi sunu tàqalikooy gaynde gi dina nu lekk lu ñuy def mooy nañu booloo rek fu ñuy dem nañu ànd ñun ñenn suñ ko séenee muy ñëw rek ku nekk na arrière xanaa buñ ko mbëkkandoowee benn yoon dana nu ba waaye gaynde gi daa muus bopp daf leen bàyyi bañ ñëw mu mu nëbbatu dem ci benn bu weex bi ne ko yéen yéen samay mbokk ngeen ñu baax ngeen gis ngeen fu ngeen nëbbatu bëccëg bu ñuul bi laay gis rek ma xam ne fii ngeen nekk ma ñëw attaqué leen bu ngeen bàyyi woon ma lekk bu ñuul su dee yéen ngeen féex kon dootuma leen gisati ñu ne ko lekk ko mu ñëw bëgg ko mu daanu mu dem ci yeneen ñaar yi ne leen gis nga bu weex bi bu ngeen nekk guddi ma gis ko parce que dafa weex tal di ngeen di bàyyi ma lekk bu ngeen féex noonu la def noonu la def noonu la def ba lekk ñeenti nag yi noonu nag lañ ñu def ñu nit tey li gars yi ne ittafaqal muslimuuna allah yattafiqu julli ñi dañoo toog ci benn table réunion ne ñun bu ñu déggoo xam nga ne nit ñi bu ñu réunion ne ñun bu ñu déggoo ñooñu kan moo mën a fexe ñu déggoo ay ponkal yu toog na ñun bu ñu déggoo gaa yaa ngi ñëw waaye bu ñu ñëwee ñun nan fexeel ba bu ñu déggoo ñooñu bu fexe ñun ko kan moo mën a fexe mbokk ñu déggoo li moo dal julli di tey mooy dañoo réunion ñoom julli gi ne ñun bu ñu déggoo te ñee malgré ne seen i idéologie bokkul seen i xalaat bokkul seen i jubluwaay bokkul li ñu gëm bokkul waaye ñoom fexe nañu nekk benn pour xeex ak lislaam waaye waa lislaam moom bañ nañu ne nañ duñ nekk benn mbokk yi lan moo waral lii lépp ñuy xeex lislaam wax naa leen ko mooy kattan gi ñu gis ci lislaam ak leeraay bi ñu gis ci lislaam ak njub gi ci nekk ak dëgg gi ci nekk moo tax ñu taxaw di xeex lislaam ak waa lislaam xeexuñu lislaam rek yem ci mais jullit yi ku gëm laa ilaha illa muhammad rasulullah yow it ci nga bokk ci xeex bi nga bokk ñu taxaw di xeex lislaam xeex boo xamante ne yenn saa yi mu feeñ yenn saa yi mu nëbb ñu song ko nag moom lislaam ak waa lislaam yi ci juróomi côté ci côté politique lan ngay dégg islaam moom diiney àllaaxira la du diiney àdduna yàggul barki dem mu dong fii la ay kilifa daan jógee di dem ci kilifa diine yi di leen seeti naan leen yéen kay dëgg-dëgg àllaaxira moom yéen bu soobee yàlla seen ginnaaw lañ nekk waaw mbokk yi fan la yàlla wax ne kilifa àllaaxira daa am ak kilifa àdduna ci ban saar la ko yàlla wax kilifa àllaaxira ñu ñëw ne la yow yaay kilifa àllaaxira àdduna bi moom génn ci sa loxo ba mu set yow kay deel ñaan rek ñun ñoo leen indil lépp àllaaxira moom benn kilifa moo fa am te mooy allah subhanahu wa taala àllaaxira amul beneen kilifa bu fa nekk kon bu la naxee fii ci àdduna seppi sa loxo ci àdduna bi di la naxee àllaaxira foo xamul lu fay xew perte nga perte nga fexe ba jullit bi politique ñu nax ko ne ko dafa salte bul ci wax bul ci bokk bul ci dugg mbir mu bon la dafa araam te yow ku sell nga ku baax nga ba jullit bi defee loolu lan lañ def mu dem toog këram ñoom ñu ñëw tëral seeni loi yoo xamante ne yàlla amu ci kàddu yonent amu ci kàddu ba pare di ci àtte jullit bi ñun ñii ñëpp toog fii ci lan la ñuy àtte fii ci suñu réew ci yàlla ci yonent ci lan la ñuy àtte wax leen ko du ci diine ci ay caaxaan lan ñuy àtte yoo xam ne ay nit ñoo ko wax ma anzal allahu biha min sultaan est-ce que loolu ay jullit war nañ ko nangu lan moo war a loolu mooy seggi gi ñu seggi seppi suñu loxo ci adduna bi daan ne politique dafa salte sànni ko fële li politicien bu mag bi di wax nee na politique tubaab yi ñoo ne woon sëriñ si yat la bu am sobe bu leen ko laal sëriñ si daw tubaab yi ñoo raxas yat bi ba mu set topp leen di leen ko dóoree waxuma la dóoree leen ko mais ñun ñëpp lañ ko dóoree parce que tey li tax suñu dëkk mënunoo dund diine bu leer bu set wicc mooy politique bi toog fi loi yi ñu indi suñu assemblée yi nga xam ne amul benn njëriñ du benn dëgg ñoom ñi ko tëral ñoom lay aar ñun miskiin yeeg waraakaana yi amuñ ci dara xam ngeen ne ministre bu ñu agressé kenn mus ko rëy agresseur yi duñu laal ministre duñu laal ab député duñu laal commissaire duñu laal lieutenant duñu laal colonel ñan la ñuy rey ak a dóor mooy ñun ñii baadoo la yeeg waraakaana yi mais ñoom ñee dañ leen di garder ba garder seen duus bi dem duus dañ lay topp ci buntu bi nga dugg ñu tëj ko taxaw di xaar ñun ñi nag ñun amuñu sécurité ñun moo tax xoolal suñu boo duggoon fii léegi daal ne borom fenêtre weñ bii sa fenêtre bu tax mu nekk weñ su mu ne la agressé rek sàcc yi voilà kon benn foofu dañ fa xeex l'islam fexe ba jullit bi bu mu gëmati ne politique dafa bokk ci l'islam ñaareel bi al iqtisaadiya muy problème économique xoola tey économie réewu jullit yi foofu dafa sori nañ ñëw Sénégal suñu économique réew ci lan lañ ko basé ci riba riba la ñuy lekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon ne dinañ dem jamono riba dina tas ba ku ci lekkulit di nga lekk ci pënd bi tey ci lan la ñuy fay fonctionnaire yi loterie nationale pays bi soo rombeeg mbedd yi fekk bëccëg ci weeru koor gi nu nekk borom kër yeeg kilifa yi borom bi jaaw yu weex tal toog ci keski pays mi mel na ñuy tafsir Qur'an ni sàcc téye kaamil yi ni nii programme yi nga yaakaar ne alquran lañ tiim wala nuyoo sax duñ la fay ndax luñ ci concentré wu ah mbokk yi ñaareel bi muy côté ijtimaaya muy li ñuy dundee li ñuy dundee xoolal fexe ba jullit yi seen dund la xat kër yi xat xol yi xat li ñuy lekk sax xat yére yi ñuy sol sax na xat ñuy dund dund gu naqari dund gu karaj dund gu bona bona bon beneen bi mooy côté xalaat ak culture na ngeen fexe bu ñu jàng laa ilaha illallah muhammad rasulullah nañu jàng charte nee na max nee na Lénine nee na Firwid nee na band yu bon yooyu seeni xalaat ñu jël ko tey sol ko ci jigéen ñi ak góor ñi mag ak ndaw ba ñu fees dal ñu indi leen nag mbokk yi saaku la ca nekk buñ ko yullee loolu mooy génn li ñuy gis moom lañ sol ci sunuy saaku li ñuy gis ci sunu société moom lañ sol ci nit ñi loolu tax dëkk bi nii la mel nii la mën a mel un plus un boo ko defee ci machine ne dee du génn say baqate dana na bàcc say mbagg toq say faar damm ñu yenu la suuli waaye dee dana génn loolu dafa war a leer kon xeex boobu ñuy xeex lislaam mbokk yi dañ ko def ci mbooleem côté yi moo xam dëkk yi nga xam ne jullit ñi dañoo tuuti moo xam dëkk yi nga xam ne jullit ñi dañoo bëri yu mel ne ay Indonésie Sénégal ay Mauritanie ay Soudan xoolal doy na benn message rek dëkk yi nga xam ne jullit ñaa fa ëpp feexe nañ ba à rébellion am fa comme Sénégal nga xam ne ay quatre-vingt-quinze pour cent lan musulman du loolu la ñu wax tey jii bu ngeen seetaanee journal huit heures gis ngeen autorités yi ñu ngi dem dajeeg rebelles yi di waxtaan ak ñoom. Soudan ba ñu xamee ne jullit ñoo ëpp sud Soudan am nay rébellion wala Guinée commencé na am. xoolal Indonésie dëkk bi ëpp jullit ci àdduna commencé na am maanaam dëkk yi am ay jullit yëpp nga xam ne jullit ñëpp dañu ut benn puq bu ndaw ngem ñëw ñu ne leen xeex leen pour am indépendance parce que xam nañ ne yàgg-yàgg am na ñoo xamante ne lii tubaab yi sol ci seen bopp saa yu ñu demee ba yëlbu la ñu sol seeni poos saa yu ñu demee ba yëlëb ko mu wadd ñu fëggat lañ tegoon seen kaw yëpp wàcc ñu oyof gis dëgg yàlla gi rek dañuy dem ñoom faalewuñu ay bal dafa am dëkk yoo xam ne dañoo toll ci période dañoo yëlbu la gaa yi soloon seeni bopp def ko seeni poos tegoon ko seeni kaw loolu dafa wat ñu taxaw ne laa ilaha illa muhammad rasulullah ñu mel noonu nag ragalatuñu bal ragalatuñu ay karwaas ragalatuñu ay coow ñooñu dañuy tudd diine ñu mel ne ñoom waa afghanistan ñu mel ne waa Tchétchénie ñu mel ne waa algérie ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ne waa soudan ñooñu mbokk yi dañoo faxasu dañoo yëlbu ñeneen ñu ci topp bëgg a yëlbu rek gaa yi pare nañ seen ginnaaw xool Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire bii soriwul lan moo tax problème am fa mooy islam la ñuy xeex buñ ko ragal dañ wax dëgg islam la démb gars yi soxla woon nañ watara FMI soxla woon nañ ko banque banque mondiale soxla woon nañ ko parce que seen taalibe la woon liggéeyal na leen ñu nangu ne ivoirien la mais tey ba mu ñëwee Côte d'Ivoire commencé tabax ay jàkk ah may jullit ñi feet sunu gàmmoo ba ci suba sa feet la tabaski ba ci suba feet la gars yi na waa ji bis bu toogee ci réew mi islam am ndam kon nag bu mu fi toog na ngeen ne du ivoirien jeex na islam la bu kenn yox-yox yi di wiiri nañ wax dëgg problème bi loolu dong la démb ba ñu nangoo ñoom lay liggéeyal nekk seen premier ministre ah dem banque mondiale nekk FMI di liggéey affaire yi baax nangu nañ mu nekk ivoirien mais tey ba mu naree liggéeyal l'islam ñëpp banque seen loxo di yuuxu te di ivoirien ñëpp noppi te xam nañ dëgg xam ngeen nit mënta judd nekk premier ministre ci réew ñu ne ba pare xëy suba ne bokkoo loolu nu mu nekke kon problème bi politique la dafa war a leer suñu bopp ni islam la ñuy xeex kon xeex bi ma ni ci dëkk yi nga xam ne jullit ñi dañ faa bëri doole foofu moom xeex bi day nëbbu ay secret lay nekk ci suuf comme ni ñu koy defee Côte d'Ivoire ak ni ñu koy defee Sénégal waaye dëkk yi nga xam ne jullit ñi dañoo ndaw yooyu fay leen ëpp doole foofu moom jullit du wax lu mel ne Palestine a ngi nii lu mel ne Cachemire a ngi nii lu mel ne Bosnie a ngi ne lu mel ne Tchétchénie a ngi ne lu mel ne Albanie a ngi ne barki démb lañ daan xotti biiru xale yu jigéen yu ëmb naan dañuy xool liir nu muy tëdd ci biiru yaayam di violer jigéenu jullit ñi góor ñi ñu rey leen mag ñi ñu bàyyi leen ci dëkk nga xam ne amatuñu njëriñ ku leen laal ñu dee ku leen laalu ñu dee xiirloo leen ba ñu dee loolu dafa leer kon xeex bi dafa matale biir ak biti dëkk yi nga xam ne jullit ñaa fa ëpp foofu dañuy nëbbu nekk ci yeneen mbir di xeex islaam waaye fi nga xam ne man jullit ñee fa ëpp jullit ñee fa gën a néew foofu dañ naan ku rey jullit am nga benn benn benn benn benn benn benn grade ku rey jullit am nga grade noonu lañ koy defee doomu ndey lii yëpp nag li ko waral ci biir réew yeeg biti réew yi ñuy xeex lislaam te ñoom xeex bi ñuy xeex lislaam dañ cee dëgër dañ cee am kattan parce que seeni moyen mat na ko ba pare seeni soldat ak seeni nit pare nañ pour jàppale ñoom seeni xalaat pour mu sam loolu ngay gis Sénégal tey benn tubaab ñëw jóge Europe jóge Angleterre mbaa France wala nga gis kenn ku jóge Amérique ñëw ne la dama ñëw Sénégal pour jàngal la nu ñuy nu ñuy làkke olof mbaa ma jàngal la nu ñuy làkke tukulóor mbaa ma jàngal la nu ñuy làkke séeréer wala damaa ñëw pour dimbali la bay ñu leen di tuddee ay corps de la paix soo demee léegi fii ci dëkk kaw yi nga fekk benn tubaab bu ñëw ci dëkk bi soppi turam soppi santam lu muy def nee na day jàngale olof ki nga xam ne dafa nekk juddu nekk olof nàmp olof nekk ci biir olof yi ba bëgg a dee nga ñëw ne da nga koy jàngal olof mbaa da nga koy jàngal tukulóor mbokk yi xool leen lii fekk du loolu leneen lañ ñëw di ko ut di ko jàng si ci ñun mais ñun xamuñu ko ñaata tubaab ñoo jóge Europe ñëw fi ne dañuy tuub dugg ci kër sëriñ si ñu ubbi leen buntu yi ubbi leen ruq yi ubbi leen secret yi ñu bind ba ay seeni téere ba mu fees daw dellu France wala daw dellu Europe di weeja lañ lañ gis ñaata ay téere téere yaa ngi fi tas dem leen ngeen dem liir di nga gis kër yi fii këru diine yi ab tubaab bind ci téere daa ne lii moo am ci biir kër yi lan ma waral loolu mooy nëbbatu bi ñu nëbbatu ñoo ne dañuy tuub tuub lu fekk tuubuñu duñu dara dañuy fen ñëw jàng li ñu xam lépp yóbbu suñu defee tas ko di xas di xas ak di mokke naan lii fa am dara nekk ko mani ñoom seen xeex bi ñuy xeex dañoo am moyen di nga gis tubaab bu volontaire bàyyi Europe xoola ni mu neexee bu fekkee dañuy wax kër yu rafet fala dàq bu fekkee dañuy xalaat jardin yu rafet fala dàq bu dee dañuy xalaat ay lekk heure day toog trop heure day un naa yu ñu ko dul fay salaire parce que lan day liggéeyal diineem pour lan pour diineem tas ñun fii jullit yi suñuy fonctionnaire sax boo leen affecté Bakel ñu ne la demuma démissionné waaw ci biir réew mi lañ nekk de koo ne dama la yóbbu Thiès mu ne non foofu sori na fii rek su ma fi mënul liggéey bàyyi xoolal te ñee dañuy volontaire toog ay mois duñu leen fay salaire pour liggéeyal seen diin moo tax ñoom ginnaaw ba ñu paree ba dajale ay moyens waaye seeni nit sax dañoo nangoo volontaire ngir liggéeyal seen diini allahu akbar xoolal julli di tey te xeex boo ñu boobu ñuy xeex lislaam mbokk yi pour gàkkal deru lislaam ak fexe ba jullit ñi néew doole ak dammate leen bu ñu bokk fenn bu ñu gëm dara nañu fexe ba soppi jullit ñi def leen ay yeneen nit yoo xamante ne amuñu jubluwaay bu ñu am diine bu ñu am pas-pas parce que bu ñu la nee kaay génn ci lislaam da ngay bañ bul julli ku la ko wax bul woor ku la ko wax dootoo ko dootoo dootoo ko déglu waaye dañuy fexe ba ngay julli te dootoo am yëg-yëg ne yaa ngi julli dañuy fexe ba ngay woor te doo yëg caf kay koor fexe ba nga dem màkk fekk doo yëg cafka gi ñu fexe ngay jaamu yàlla waaye doo yëg li muy neex wallahi alazim mooy lii am tey da ngay gis kuy julli yàkkamti pare naa fi la nañ nekkoon da ngay rek kuréel nañ dem jàkka rapide ku bañ station monte fa ngay dem xaw ma jàkka rapide am na fi xaw ma waaye jàkka rapide partout dans le Sénégal ak bëri ci Sénégal pour lan te parce que wala kuy jaamu yàlla te bëggu la yàgg ak yàlla di jaamu yàlla te bëggoo yàgg ak yàlla te boo toogoon ci kanamu njiitu réew mi doo yàkkamti jóg boo toogoon ci kanamu kilifa doo yàkkamti boo toogoon sax ci kanamu koo bëgg rek te soppee ku jigéen mbaa ku góor doo bëgg a jóg nga nekk ci kanamu yàlla te bëggoo faa yàgg dañ seetaat suñu bopp kon ñoom ba ñu bëggee fexe xam nañ ne mënuñoo fexe ñu jaamu yàlla waaye ñu fexe génne nu pour dootuñu jaamu yàlla fexe ban koy def te mbir yi du am lu mu saf nan ko def mais bu mu am lu mu saf mooy loolu te xam ngeen ne jaamu yàlla dafa am lu mu doon neex xoole yonent salaa sallam lan la ñu wax su sonnoon lu muy def danaan yaa bilaal arihna ila salaa bilaal noppal ñu ci julli su sonnoon day julli ñun tey bu nit sonnee looy noppaloo leneen mais du julli kon na ngeen fexe ba jullit ñi bu ñu am pas-pas bu ñu am diine mbokk yi jullit bu amul diine lan la am su fekkee ne man jullit laa maa ngi dund waaye awma diine te nag maa ngi tuddoo woon ne am naa diine maa ngi góorgóorlu di def lu kenn xamul ci diine di jëm a sonn waaye diine ji dëgg-dëgg nekkuma ci ci lan laa ne bu fekkee damay dund te sama pas-pas gëm gi ma gëm yàlla dëgërul sellul wérul dëgg-dëgg man maay ban jullit pas-pas boobu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee màkk dakaa tabax fukki at ak ñett mu koy tabax di ko liggéey moo tax gaa yi bañ leen dóoree ba sonn taxul ñu génn ci lislaam ñii ñu rey leen ñii ñu dagate leen ñii ñu jàpp leen sax ci safara di leen lakk ba seen yaram yi di xëm waaye terewul kuñ ci lakk ba sonn danaan laa ilaha illa allah muhammad rasulullah omar danaan toog ba càgg mu ne xabaab yokkal sunu ngëm yàlla xabaab ne ko nan laa yokk seen ngëm mu ne ko da nga yëkkati sa mbub mi ñu xool sa biir bi ni ko safara bi ñoralee suñ ko xoolee rek sunu ngëm yàlla dana yéeg xoolal bilaal xam ngeen liñ ko def xool leen sumaya xam ngeen liñ ko def xool leen yaasir xam ngeen liñ ko def xool leen ammaar xam ngeen liñ ko def waaye lan moo tax ñooñu ñu def leen loolu te génnuñu ci lislaam mooy yonent bi dafa tabax seen pas-pas ñun tey mbii mbokk yi fii pas-pas ñaata fan lañ ko jàng am na ñoo xamante ne sax xëy na xamuñu baat bi moo luy pas-pas ah di nga dégg ko laajte sunu ngëm yàlla laa wax ñaata at ñaata weer ñaata fan lañ jàng ngëm loolu tax nga gis islam bi ñu nangu cee dugal lu nekk parce que ngëm gu dëgëru nga gis ku gëm yàlla di xeesal gëm yàlla di meesu gëm yàlla di sol piso sol ay mini def yaramu neen di baali góor ñi takki jaaro nopp am ay gel di njaaloo ngénte yi dakar naase coow du cib booy yee mairie di tegg ndaw tal yi loolu ngeen gis Sénégal soo waxee ñu ne diine xumbute dagan loxo ci kaw baakaar suuf ñu ne eskay ñëpp ne nii fettas lu mooy diine Sénégal lan moo waral loolu mooy ngëm gu dëgëru ngëm gu nasax ngëm goo xam ne lépp ci la ay taxankatu guddi ngëm gi leerul mbokk yi dañ wax dëgg bu nu ragal ne dëgg dëgg la dëgg dëgg yàllaa ko moom kun lil xaq abdan wa abdil xaq hurran mbokk yi bu ñu fexee ba amatuñu diine amatuñu pas-pas bu dëgër pare nañ ci sunu pare nañ sunu àdduna jullit bu fekkee ne ngëmam dëgëratul amatul diine kooku lan la lan la Omar doon wax gaa yi bu ñuy xeexi mu ne leen maa ngi leen di yëgal yéen sordaaru lislaam yi yéen ak yéeféer yi yéen a yem benn ngeen ay nit ngeen fenn dong ngeen leen rewe mooy yàlla ci imaan su ngeen moyee yàlla yéen ak ñoom a yem yàlla day seetaan ku rey sa moroom keneen perte waaye bu ngeen amee ngëm xeex ak ñoom bu ñu leen reyee yéen ngeen dugg àjjana bu ngeen leen reyee yéen samp kàddu yàlla ci suuf waaye boo moyee yàlla yaa ngi yéeféer bee yem waddu law takfuru fa takunu sawa ñoom bëgg na ñun ñu wedd yàlla ñu nekk benn rek tolloo fekkee yéeféer bi day naan sàngara ngay naan sàngara yéeféer bi day njaaloo ngay njaaloo muy fen ngay fen muy sàcc ngay sàcc ngay sàcc ah moom du julli yow doo julli du woor doo woor loo ko tane wax leen ma ko benn ngeen xanaa da ko gën a rëy laa mi benn ngeen kon ñun dafa am lu ñu leen tane lan lañ leen tane mooy laa ilaha illa muhammad rasulullah suñ ci génnee ñun ak ñoom ñooyam loolu dafa war a leer suñu bopp ñoom nag li tax ñu programmé li programme yooyu mooy faqad ahassu bi quwati l islam wa xatrihi alayhim wa bi annahu diinun zahif mumtad yantasiru bi surqati lbarq mata ida qawiya ahlu dañoo yëg ne islam diina la joo xam ne diinay kattan la diinay doole la diina la joo xam ne dafa gaaw a tas comme melax ni muy gaawe dem noonu la islam gaawe tas fu mu dugg rek xef ak xibbi day tuubloo ñëw ñëpp def leen ay jullit waaye kañ bu fekkee ay nitam dëgër nañ comme na ashaabu muhammad dëgëre woon ashaabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yonent bi génnul àdduna lu dul islamisé na golf bi waxuma la màkka de waxuma la madine waaye golf màkka ak dëkk yu ko wër yëpp yonent bi taxawal na fa drapeau la ilaha illa muhammad rasulullah te ay nit yu ndaw bu leen fàtte badr démb la woon badr démb démb ay nit yu ndaw ñoo sampoon kàddu yàlla ci suuf ay nit yu ndaw ñetti téeméer nit ak fukk ak ñett waaye parce que dañoo dëgëroon moo tax islam day gaaw a tas bu fekkee ay ñoñom dëgër nañ waaye islam mbokk yi day nasax bu fekkente ne ay nitam nasax nañ comme ni ñu nasaxe tey saa yuñ demee ba gis islam tas ñu gis dëkk bu mu dugg mu tas nañu yëg ne ay nit ñoo ko yor di ko tas nit ñu dëgër ñu ngëm yàlla dëgër seen bopp seen pas-pas leer ñu xam ñoom ñooy ñan ndax day mujj nekk mbir yëpp seen loxo lay nekk ndax su boobaa dañ fekk ñu préparé ci nombre préparé ci lépp ba mu mat sëkk comme ni leen ko yàlla waxee kon dinañu doy ñu yëg ne xeex bi nga xam ne noonu yàlla yi ñu ngi koy xeex lislaam ñu yëg ne tàmbaliwul tey te du yegg tey am na ñoo xam ne sax booy wax islam dañ koy xeex ñoom mënuñu ko gëm buñ ko mën a gëm parce que ñoom foofu lañ toll ñoo ñoo ñu chronique ñi waaw ñoo ñoo ñi nga xam ne feebar bi da leen a jàpp xeex bi dem na ba jàpp leen ba ñu chronique xàmmetuñu ci guddi lañ nekk xàmmetuñu ci bëccëg lañ nekk ñoo ñu ngi ci sukuraatul mawt tey ku xamul ne islam dañ koy xeex rek yow bu yeboo nga xam ne bokkatoo ci jullit yi ndax mbir yi sax léegi dafa nëbbatu te xeex bi tàmbaliwul tey yàlla waxoon nañu ko démb septième siècle lan la waxoon muhammad walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi millatahum yow muhammad yahud ak nasaraan muy juif ak chrétien du ñu kontaan ci yow muhammad lu dul da ngaa bokk da ngaa bàyyi sa diine topp leen soo bàyyee sa diine topp leen rek ñu kontaan ci yow commencé laa takkal garaat looloo tax nga gis fii Sénégal ah ay kilifa diine yu mag ñu takkal leen ay garaat te garaat yi ay garaat franc-maçon la su ngeen demee ngeen delluwaat ci téere franc-maçon yi ngeen xool ko di ngeen gis grade yi te danañ leen wax ne kuñ ko takkal franc-maçon ñoom ñoo lay wax lool waaye xëy na ña gis nga ñàkk xam ñëw di la takkal non homme de liberté homme de paix homme de nangam nangam ngay jayeeku ci kaw gars yi di fettasu ndeke musiba lañ la takkal mbir bi na leer delluwaat leen ci téere yi ngeen jàng di ngeen fekk ne grade franc-maçon yi mi ngi fii ci suñu biir réew ñi retraité moom lañ leen di takkal waaw nga naa man kay liggéey naa ba retraité gis nga fekk grade franc-maçon lan la takkal ngay tiitaru diplôme franc-maçon ak yeneen ak yeneen nag yoo xamante ne yéen ma ko gën a xam yàlla waxoon na subhanahu wa taala wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataawu gaa ñi duñu deñ di leen xeex fekk ñoo ngi koy mën kañ lañ leen di bàyyi bu ngeen bàyyee seen diini moo tax koo fi gis rek mu am xaritu yéeféer dafa am lu mu bàyyi ci diineem wallahi la ilaha illa muhammad rasulullah doo am xarit bu gëmul yàlla doo ko am waaye koo fi gis mu am ay xaritu noonu yàlla yu dul jeex di leen lim yëgal am na lu mu bàyyi ci diineem loolu bu la ci kenn nax yàllaa ko wax muhammad yàllaa ko ne walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi'ahum millatahum yàllaa ko ne wala yazaaluuna yuqaatilunakum hatta yaruddukum an diinikum in istata'u yàlla wax na sax waddu law takfuru fa takunu sawa bëgg nañ yéen ngeen weddi yàlla ngeen yem ak ñoom beneen aaya mu ne waddu law tudhinu fa yudhinuun bëgg nañ nga nooyal ñu nooyal waxoon nañ ko Muhammad kaay jaamu sunu yàlla benn weer ñu jaamu si yàlla benn weer yàllaa ko weddi ne leen lakum diinukum waliya diin mbir mi dafa war a leer ab jullit dafa war a leer mbiram dafa war a leer jullit pas-pasam dafa war a leer jullit dafa war a leer ku ko gis xam ne mbiram dafa leer waaye jullit boo xam ne weexul ñuulul kooku du jullit naafeq la te xam ngeen naafeq yi ñoo sonaloon yonent bi Medine ñoo ñoo feesoon jàkk yi di nodd ak a bale te li yonent def ñoo ko daan daaneel waaw ñooy ñëw taxaw bu yonent bi soxlaa dara dese lu dul exécuté ñu daw deltu ginnaaw doomu ndey xeex diggante dëgg ak fen siraaun daa'im wa mustamir tey continué te dafiy sax tàkk lu tax dafa tàmbali woon depuis ba yàlla defee xalifaam ci kaw suuf muy aadam kañ la fi jóge ila an taqumu saa ba bés bañ ci di jóg dëgg ak fen du ñu dañ di xeex waaye nag ngànnaayu fen du dëgg du taxaw mukk ci kaw suuf lu dul dëgg mooy yambare foo dem gis dëgg daw ay fen di àtte réew ma comme Sénégal yëgal ne ña fa nekk ñoo yambare lan moo tax tey ay fen di ñu àtte téeméer téeméer boo jël ci Sénégal juróom ñi nee nañ moo dul jullit kon lan moo tax ay caaxaan di ñu àtte c'est parce que dëgguwuñu bu kenn wax kenn kenn ku nekk tàmbaleel ci sa bopp borom kër gu nekk boo islamisé woon sa kër nga nekk jullit piir sa jabar nekk jullit piir doom yi nekk jullit piir réew mi ñëpp nekk jullit kenn wax gouvernement de kenn ku nekk koo waxal sa bopp rek ñun ñu toog fii ku nekk am nga soxna soo fekkee jullit piir nga sa soxna nekk jullit piir say doom dañuy nekk ay jullit piir nga yar leen ci loolu waaye lan lan yara suñu doom lan lan yara suñuy soxna yenn saa yi sax am na ñun ñoo xam ne seen dañoo ragal seen i jabar bu ñuy julli fajar sax ñemewul leen ndox soxna si jógal julli dañ naa la man de maa ngi julli julliwul sama yoon nekk nii ragal ñemewo kooree xam nga ne boo koy laal rek musiba tey jii doo fi ndogoo xam nga loolu waaw am ñoo xam ne moom ñemu ñoo yeew seen doom seen doom buy nelaw ñemuñu koo yee waaw am na borom kër yoo xam ne mani ñemuwu ñoo yee seen doom buy nelaw jógal julli ñemewuñ ko bu wooru sax ñemewuñ ko sax wooroo bu ko gis na mbir mi ñun ñoo dëgguwul nañu wax dëgg ñun ñi ñoo dëgguwul réew mel ne Sénégal ak li fi jaar ci ay borom xam-xam xeex fi ba sonn ñii ñu génn leen dëkk ñii ñu def leen ay résidence surveillée ñii ñu rey leen ñun ñu mel nii nu mel buñ waxee ñu naan nangam ak nangam loxo ci kaw bàkkaar ci suuf di di taafantoo ay ay caaxaan te dara du ci dëgg ay feni kese la ku ci dee jahannama nga jëm programme bi ñuy dund ci kaw suuf bokkul ak bi yàlla tëral biir bàmmeel te wallahi buñ dee rek mbir mi leer kon diggante dëgg ak fen mani xeex bi du fi jóge fii lay sax dakk kañ la fiy jóg bu yàlla lemee asamaan lem suuf waaye kañ la fen di samp suuf dëgg dawee comme ni dëgg dawee tey doy na rek li ngeen yëg ne dëgg dafa daw benn borom xam-xam dafa bind benn téere nee na jullit yi nekk ci àdduna bi bu ku nekk jëloon xottu gerte def ci ndox ñu dem ba Israël xëpp ko yahudi yahudi dañuy lam lan la bëgg a wane foofu lu mu bëgg a wane mbokk yi jullit yi ni ñu baree ak ni ñu amee kàttan mais lan moo tax tey ñuy noot Palestine di leen rey kenn ñemewul wax te dëgg moo yambare kan daa di samp am ngaa naa yam nag taxaw wala Palestine ay xeer la xale yoo xeer te yàlla waxoon na laa yuqaatilunakum illa fi quran muhassana wala xale yi xeer lañ yor te duñ koy sànni gars yi dañuy dëgg gars yi yor ay blindé ay char ay kalachnikov ay rafal mais dañuy nëbb ay oto yu ñu blindé mais dañuy nëbb xale yor ay xeer di joxe seen i dënd ñu ciy dóor bal yi ci li ñuy taxaw bi mënuñu leen sax dimbale paquetu suuf doo julli sax ba ñaanal leen ne la yàlla yàlla nga leen dimbali ñu bëri julli sax amuñu yëg-yëg conscience islamique boobu boobu yëg nga yàlla dana woon innamal mu'minuna est-ce que aaya boobu ñu ngi koy dund tey nañ ko man suuxal nañ ko dindi aaya boobu nañ ko dindi comme que mënu ko nañ ko dindi innamal mu'minuna ixwa ñu jàng ka neexal baar rek kuy ñëw rek innamal mu'min déedéet dañ ko bëgg ñu dund ko dañ ko war a dund bii di tëj bi di yuuxu bii di jooy fekk dund nu aaya yi amul njëriñ aaya yi dañ ko war a dund mbokk yi looloo tax mu wàcc kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur yàlla loolu la wax su ko defee saa yoo gisee dëgg yambare rek mooy li xew tey li xew tey moo tax dëgg yambare ñuy noot dëgg ba kenn xamatul ne dëgg dëgg la ñëpp sax yenn saa yi dañuy dem bay duute est-ce que man dëgg dëgg li ma nekk dëgg la ay jullit di murtat parce que dañuy sikki sàkk ci diine ji ndax yàlla moo leen waxoon ne jullit moo war a féete kaw tey dem ba ñun ñoo féete suuf ndax lan ñàkk dëgg bu ñu ñàkk dëgg ñun jullit yi kon mbokk yi xeex bi li ko waral muy Europe dafa ragal l'islam ci 1907 dañu def benn congrès bu mag ci Europe congrès bi rëy gi mu rëy diire na weer ci ay xalaatkat ak ay homme politique ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Europe ki ko jiite woon mooy benn ministre des affaires étrangères bu Angleterre bi ñuy ubbi club boobu congrès bu mag boobu lan la wax ci ouverture bi mooy inna xadaaratal urbiya muhaddada bil inxilal wal finaan wal waajib yaqdi alayna an nabxas fi hada al mu'tamar an wasilatin faala taqulu duna inxiyaar xadaaratina mu ne li ñu seetlu ñun waa Europe mooy sunu culture dañ ko menacé ak sunu civilisation dañ ko fi waaj a jële kon li war ci ñun mooy ci colloque bi congrès bi war nañoo xalaat bu baax lan la ñuy def ba li nga xam ne moo nu menacé ñu freiné ko mu taxaw mu bañ ñoo mu bañ ñoo mu bañ mu bañ fee dugg lan lañ doon wax loolu mooy l'islam xam ngeen l'islam ba mu tasee ci golfe bi tas Asie dafa commencé dugg biir Europe nangu Espagne ñëw tuuti genn wàllu France dugg dem ba Albanie gis nga yéen a ngi dégg borom xam-xam bu mag boobu Albanie du arab du ab arab côté boobu yépp islam noot ko jël ko ñëpp di dugg ci diine ay Afghanistan ay Iran ñoo ñëpp duñu ay arab loolu nag bi ñu ko gisee ñu tiit ragal commencé dugg ci seeni ruq di xalaat naka la ñuy def ba freiner lii congrès boobu diire na weer ci ay études ak ay discussions yu ñu def ñoom pour lan pour xool yan moyens la ñuy utiliser ba freiner islam bi ba sauver seen culture seen culture ak seen civilisation ñu gis na ñoom jullit ñi ñoo gën a nekk danger pour ñoom ndax ñoom dañuy ñëw duñu indi bal duñu indi dara duñu indi kënu duñu indi karwaas dañuy ñëw indaale seenu set seenu jaamu yàlla seenu laab ñëw ak seenu jëflante yu rafet buñ jëflante yow rek nga xam ne ñi ay jullit dañ koy jël li ñu nekk islam bi ba muy dugg Sénégal lan moo ko fi dugal bal wala jaasi mbaa ay makado non ay commerçant yu jóge Mauritanie yu maandu set wicc ñëw di jëflanteeg waa Sénégal ba islam tas fi lii moo doon l'islam day ñëw parce que ay jikko la julli di tey ñoo bon ba nga xam ne nekk ay trian njublang ba kenn ñemetul wax ak ñoom te julli ci démb yi ñoom dañ doon xalaat yàlla ndax dañoo jàngoon ittaqillah haysuma kunt lépp lu ñu doon def dañ ci ragal yàlla boo leen denkee ñaar dërëm suba nga fekkaat ko mais julli di tey boo leen denkee un million soo duggee ba ngay teg un million ba la ngay génn ataaya nañ cinquante mille bu amee cinq jours nga ñëw ne li ma fi bàyyi woon laa jël si waa ji ne la waaw léegi xam nga rek may may ñetti fan parce que bi nga demee keroog dama ko fa am ku ma ko dénk fekk xam ngeen ku ma ko dénk kii toll bi waaw mu ngo mais julli ci démb yi wala yonte bi sallallahu alayhi wasallam ba muy gàddaay jógee màkkatal mu karam di dem Médine lan la ko waa màkka dénkoon seeni alal mais nu mu def dafa dem wax ali fanaanal fii soo xëyee suba kenn ku nekk ndénkaanem nga delloo ko te gaa yi ko dénkkat ñoo ko bëgg a rey bu doon yow tey fii benn waaye dénk la dara bëgg laa rey ngay daw di di dem France nooy def kii danoo xam sobe yàlla bu xëyee suba gis nga waaye yonant dafa fanaan loo ali ci biir néegam wax ko ndénkaane yi ñu ko moom mu dem Medinatul Munawwar ali yu xëy suba dégg ku nekk ndénkaane gi nga dénkoon yonant mu dem delloo la ñu doon ay jullit parce que dañ ragaloon yàlla dañu yëg neen yàlla moo leen tiim moo moo leen sëpp mu leen teg ak gisam lépp lu ñuy def yàlla xam na ko ndax yaalamu xaainatal ayun wa ma tuxfi sudur xam na li bët yi di xool xam na li xol yi di xalaat mbokk yi ñoom bi ñu xalaatee loolu ba pare dañu gis ne Angleterre moo leen waroon dimbali ci ay moyens ak ay xalaat ak ay mbir yu muy tëral parce que Angleterre moo colonisé dëkk jullit yi ñu commencé tabax ci dëkk jullit yi ay églises ay foyers de jeunes ay naankaayu sàngara ah te nag gis nga lan la ñuy naxee ñun waa Sénégal lan la ñuy naxee jullit ñi mooy fu ñuy tabax benn caaxaanukaay dañuy ñëw ne foyer de jeunes la non fii benn foyer la quoi pour waa koñ bi yëpp jeunes yi ah ñoom ñoo fii kii quoi nga ni loolu koy baax na lan la fa jeunes yi di def nan ko leeral fa la ñuy njaaloowee dañu moo leer na leer fa la ñuy naanee sàngara fa la jigéen ñi biire jigéen ku fa dem juróomi yoon suba nga commencé sol garambu di tublee ko wàccu loolu lañ def commencé tabax ay église kan moo leen financé israélien yi financé leen juif yi financé leen ñu réussir ci ci réussir bu gaaw commencé dugal seeni téere ci dëkk jullit ñi lu mel ne Sénégal dañuy ñëw fekk la nga am téeméeri xale téeméeri doom ñu ñëw doo xam benn saaku jeeb saaku sunguf meew saaku dugub juróomi paquet suukar ne la góor gi jox ma kii ma yar ko commencé ko yóbbu église gis nga di ko jàngal Abdallah la tudd de bu ñu ko jàngalee ba mu am bourse yóbbu ko Europe mu ñëwaat boo ko nee julli mu ne la eh góor gi luy loolu luy julli nga ni ko ah mu ne la non man du ma julli du ma julli nga ni ko ah yow may sa baay mu ne la non mais booy sama baay te yaroo ma nag da ngaa fàtte ne man ñoom Jean ak ñoom Paul ñoo ma yar mais gaa yooyu ñoo la gën a baax ñoo la gën a baax yow baax ñooñu wuu bàyyi ma rek yow bu saabee yàlla weer bu dee naa indi saabu ceeb oto baa ngi nii loo soxla laaj ma mais affaire julli moom teg ko fee de côté quoi baa bi commencé ay waay man ñi lor nañ ma waay fekk moo lor boppam ceeb la jaay diineem ceeb. xam ngeen ne temps yi passé Sénégal am na benn dansine bu nekk Mboro bu ñu organisé woon xëcc jigéen ñi di mesurer seeni sexe ngir lan saaku ceeb non bul wax alal boo ne alal affaire bi day rëy saaku ceeb alal ceeb. ceeb ceeb nga simmeeku ni la sa yaay jure tëdd ngaa yeeku ñu jël mètre di ko teg sa sexe ngir lan saabu ceeb ceeb xanaa ceeb boobu moom ku ko lekk doo dee wala ceeb bi lu ci ne inna lillahi wa inna loolu nga koy Sénégal nga koy Sénégal ceeb ceeb tax nit jaay diineem bàyyi yàlla bàyyi ngoram bu doon du yàllaa gënoon sax nga xool sa ngor xool sa jom xool sa dignité xool suba boo nekkee yaay di daagu ci mbedd mi mbaa nit ñi duñu teg ci sa kaw dara est ce que doo romb ñu ne moo kii mooy yaayu diw kii ba mu nekkee booy dañ kaa jàppoon def nangam moo tax jigéen ñi war nañu bàyyi xel bu baax seen bopp bëri na jigéen ju nar a toog fii suba ba nekk yaay soo jaagoo ci mbedd wallaay doo saf waa koñ bi parce que guy gu daanu nga woon xale yi ci la ñëw ci yow la ñu jàngee yéeg guy gu daanu xam nga guy gu daanu ci dëkk xale yi bandi yi ci moom la ñuy jàngee yéeg ba ñu mokkal jigéen nag war naa moytu nekk guy gu daanu ñu jàng ci yow ak mbon ba nga màgg nag léegi nag nga bëgg ub sa kaalaak sa kurus nag di romb nag ñi ñi nag moom fekk sa ndaw fowee nga ko yonent yàlla yaxyaa bi mu nekkee xale dañu ñëw ne ko yaxyaa kaa ñu foy mu ne leen maa lillahi bi xuliqtu yàlla binduma pour foo yàlla ne afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun fa taala allahu malikul xaq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim kon yàlla foo taxul mu bind ñu foo taxul yàlla bind asamaan ak suuf maa xalaqna alsamawati wal ard wa ma baynahuma batilan zalika zannu allazina kafaru fa waylun lillazina kafaru min annaar kon ba ñu xalaatee seen i xalaat ba commencé Angleterre ak Israël ànd mu yëppu di ñu commencé di tëral seen i plan xalaat bi njëkk bi ñu njëkk a xalaat pour xeex ku jullit ñi mooy muxaawalatu ibaadil muslimin an diini ñu ne nañ fexe jullit ñi sori seen diini xam nañ ne mënuñu leen xeex parce que bu ñu indee genre de combat bu ñu indee ay jaasi ak ay fetal jullit ñi dañuy jaay seen bopp dañuy rey dañuy déclarer jihaad kon léegi ni ñuy def dañu fexe soril leen seen diin ñu ne waa nan la ñu fexee loolu point bu njëkk bi ñu ne muhaarabatu quraanul karim wa taswih ahkaami da ngeen fexe ngeen xeex al quran ngeen gàkkal atte yi point boobu ñu fexe gàkkal quran lan moo tax salibiya ñoom ñu jàpp ne quran moom mooy mbir mi ndax ñoom dañoo gis mooy masdar al asasi li quwatil muslimin mooy teen wi nga xam ne bu ci jullit ñi naanee rek delluwaat démb jàng seen histoire maam jullit lan moo koy dëgëral da ngay jàng alquran nga gis ni yàlla ne la ashaabul uxduud ñooñu ngeen di déggoo samay zaata tuur uti la ashaabul uxduud benn safara bu ñu taal benn teen bu ñu taal def ko ay matt ba mu fees muy jëri-jëri ci kaw ñu jàpp ay nit naan leen weddi leen yàlla wala ñu dugal leen ci gaa yi naan laa ilaha illallah di ci dugg ba jeex tàkk nga jàng loolu yow yow lan lay jur ci sa bopp bi nga jàng saharatu firawnu ñi nga xam ne dañoo concours ak firawna gañe ko firawna ne leen ñu gëm yàlla ne aman naa bi rabbi Musa wa Haarun firawna ne leen ah innahu la kabirukum bu ngeen génnul ci li ngeen nekk ma rey leen gaa yi ne ko faqdi ma anta taqdi defal li ngay def bés nga ñu mënalu innama taqdi haazihil hayaatu dunya adduna rek ngay def ëllëg àllaaxira ñu nag yow ayam gis nga alquran moo lay jox force moo lay jox kattan moo lay jàngal saxaaba yi moo lay jàngal yonent yi moo lay jàngal xoolal Ibrahim booyal safara ne ko tëmbax ci biir safara si Jibril ba mu ñëwee ne ko Ibrahim ah mba fayal la safara si wala mu ne ko xasbuna allahu wa ni'mal wakil ashaabu Muhammad keroog ba leen gaa yi ne gaa yaa ngi dajale bu leen dem lan la ñu wax inna naasa qad jama'u lahum fastahum lan la yàlla wax mu ne fa zaadathum imanan fa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil voilà alquran mooy base bi mooy teen bi nga xam ne buñ ci naanee lu taxaw suñu kanam dañ ko fiy jële ci minute minute ñu jële ko fi kon bi ñu xamee loolu ñu ne na ngeen fexe alxuraan moom bu mu defati liggéeyam ci congrès bi benn waay bu tudd Galabson te mooy cigarette bi ngay bi sénégalais yi di tox waaye jiñ ko tuddee du am na cigarette bi tudd Galabson am na de déglu leen ma wax leen yéen jullit yi tox Galabson lan la Galabson defoon seen kaamil alxuraan bi ci biir congrès bi la yëkkati cigarette bi la yëkkati kaamil bi daan na nii lan la wax mu ne maa daama haza alquran mawjudan fi aydi almuslimin falan tastati uruba assaytaratu ala shart wala an takuna hiya nafsaha fi aman mu ne maa ngi leen digal alquran bii fekk jullit ñaa ngi koy gëm Europe ci danger la ñuy nekk doo ci nekk ci sécurité benn waaye moo jóg jóg rek ci biir réunion bi këf téere bi rek xottate ko mu ne ko uffun laka yaa aduwul ahmaq yow membre bu con bi bu dof bi yaa kan na su lu tax nga xotti téere bi mu ne ko ah léegi jullit ñi dootuñu ko jàng xotti naa ko mu ne ko dégg li may waxat ci sa ndox bi xanaa xamoo téere bi jullit ñi dañ koo naan di dox ak moom koo gis buy dox bi rek kaamil baa ngi ci bopp bi parce que démb jullit ñi noonu lañ meloon ay kaamil lañ woon yuy dox ci kaw suuf ay kaamil lañ woon loolu sax Sénégal dañoo dund histoire bi ay mbaakol jigéen ñu mokkal Qur'an di dox ak moom dafa amoon Sénégal waxuma ci àdduna bi de Sénégal donc dafa amoon ginnaaw góor ñi dafa amoon ay jigéen ñoo xam ne xoolal benn waaye dem na jàng alxuraan ba mu jeex ñëw di tari su taree dañ ko war a may jabar ndaw saa ngi ci waañ bi dëbb waa ji di tari di tari di tari ba ci yàgg daal di juum ndaw saa ngi dégg de ci gënn gi ci kuur gi la ko ndaw si waxee aaya bi waa ji jël aaya bi dem yoonam loolu dafa amoon Sénégal waaye gars yi ñëw fexe ba ñu ne fexe leen jullit ñi di jàng alxuraan fekk bu ñu xam lu alxuraan tax mu jóg moo da nga gis bi Sénégal ndeysaan alxuraan lan la ko gars yi doyee man de am naa kaamil am naa kaamil bu ñu traduire moom la mu ngi sama xal mu ngi sama kaw armoire kaamil bi ak garab te cinquante mille laa ko jëndee kaamil pour armoire bi la wala pour yow la lan moo tax yàlla wàcc kaamil pour armoire bi nga gis kenn ki ne non man am naa kaamil mais gis nga sama oto bi ci kanam lay nekk accident yi léegi wóoru nga gis kenn ki ne non man am naa kaamil mais ci buntu kër gi laa koy takk daa beaucoup de valeur ici sàcc yi xaaral ma def ko mu musal ma ñenn ñi lan lañ def alxuraan bu amee ku dee jéekatu péem yeeg naankat yeeg njaalookat yeeg pàkkmaan yeeg wagabon yi jees maan yi bu ñu dee ak lekkatu riba yi nga xam dañoo am xaalis gars yi ñëw indi kaamil bi ñu jox leen cinquante mille ñu seetloo dem seen yoon daanaka Sénégal mujj nekk ay groupe yi kaamil GIE groupe yi kaamil foo dem am na groupe boo xam ne lan lañ fi nekk ci dëkk bi ñooy jàng kaamil pour ku dee wala pour ku dee ñeneen ñi moom la leen def alxuraan def ko téere yi ñuy takk koo gis mu ne pour GIE ngi fi naasee ngi fi falaxee ngi fi damaa beleen rew ñëwal fexe ba nit ki di jàng alxuraan bu mu xamante alxuraan lu muy dox loolu tax nga gis Sénégal ku ne tat di lang di tari Qur'an nga dégg gaa yi naan Chérif